salaamaaleykum mbokki internet yi ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk fii à dakarnet.com comme nu ma koy defee di am mbégte ak contentement di dalal ndaanaan Astou yi nekk fii Sénégal tey nag dañuy dalal koo xam ne kenn dootu ko présent muy Galas di ko dalal suñu émission biis dañ koy jox kàddu rek mu nuyoo après di ko moom ci waxtaan Galas ñu leen di di la ziar. salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen béggee bu baax a baax ñi safoo seetaan internet. taamu ci nag site bii di dakaar Net et ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di nuyu bépp soppe galas ak foo mun a nekk. mi ngoog ah, galas moo nekk noonu kon xam naa dañuy def lu xuus rek ah, dugg ci waxtaan ak moom mais galas dañoo toog ay mooma dégguñu la quoi dégg toog ay moment dégguñu la ñu ne laaj ci lan nga nekk. ah ñu ngi si koom ñu ngi si liggéey bi de xam nga instant bi nag activité amul te boo xoolee doomu aadama yi kenn ku ci nekk yaa ngi toog sa te tëju di liggéey. Euh, dégg ñu parce que mun ñu dégg ndax dara amul dara amul si dëkk bi <laughs> liggéey amul woy amul tëgg amul dara amul kon mënuñu ñu ñu dégg ñu ngi génn nag ay affaire morsaïque j'espère que gis nga ko mu ngi ci mu ngi ci internet bi ak télé yooyu ñu ngi koy teg mais comme euh, comme programme amul soirée amul concert mënul am dara mënul am mënoo dégg benn artiste sax nay seetaan ay affaire am wala dara mais artistes yi mënoo leen dégg noonu la demee d' accord comme nee na moom noonu la demee après dañoo gis euh, ngay def say ngay génn ay single bu ci mel ni euh, euh, tëlal mais Galass tëlal fan la nekk parce que dañ ko gis ci Instagram beeg internet yeeg fépp gars yi di ko sinap ñi di ko calante ñu jékki gis ko mu wàcc lu waral lool. waaw xam nga morceau bu mun a doon day am day am day am projet buy ànd ak moom te boo xoolee boo génnee dara te amul soirée bu koy promouvoir. amul loo xamante ni mooy yokk turu morso bi morso boobu mënul am coow bu tax ñuy wax parce que boo xoolee morceau yi génn yëpp day génn après ñu déglu ko après mu wàccaat parce que amul programme boo xam ne mooy suivi boo xam ne moo koy moo koy dooleel loolu mooy tax son yu bari boo ko déggee après mooy loolu. kon dañuy jàpp que ni son boobu noonu bu ñu ko déggatul daa am ci daa am leneen quoi loo xam ne moom moo ko téye wala. waaw du déggoo ma ne la euh, génn nañ fii. presque cinq single yaakaar naa yaagul cinq yoo xam ne bu ci nekk dañ ko def nañ fi Baye Karim def nañ fi Mor Son noonu def nañ fi min nga ma min naa la mission bi ñu woy As Babel Demba def nañ fi son boo xam ne dañ ciy woy Waly balaago ak boo xam ne Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme mu ci woy kon donc am na yu bari yu ñu génne mais amul du am suivi carrément ndax amul programme boo xam ne moom lay àndal c'est artiste fu mënul toog doo génnee foog nga génne woy pour di fi nekk saa su ne mais comme programme boo xam ne nii moom mooy moo lay dimbali si loolu parce que même bu dee da nga def ay way tamit te amul programme amul soirée amul suivi moom ak du doon dara waaye waaye. d' accord comme ni nga ko waxee mais aussi tamit Galas dañoo gis ci yow loo xam ne mën nañu gis ñu ko ci artistes yu bari mooy di jëlat ay moroom artiste am di leen way gis nañ ci nga way ci ku mel ni euh, Youssou Ndour way euh, Mbaye Dieye fay ba ci kii euh, Waly Seck ñu ngi laaj ak Galass la moo waral loolu. waaw damay wax rek saa su ne ne nit moom ci koom daf lay neex nga xool geste mu def ko mu noble nga apprécier ko man bokk philosophie boobu laa amee. mooy que ni su ma nekkee lu may doon doon artiste su gisee artiste boo xam ne suma moroom la mu def geste yu noble yoo xam ne man mënoon waroon naa ko def peut-être yàlla mayuma doole bi wala kattan bi pour def ko su ko defee man dama jàpp ne man la ko defal moo tax toujours man damay rendre hommage ñi nga xamante ni dañuy def loo xam ne geste bu noble kanta bu dee Youssou Ndour la ah mun naa wax mun naa ko tuddee la doyen de la musique sénégalaise mu nekk nit ku nga xamante ni ñëpp dañ war a roy si fekkee da def aar bu dee da bëgg aar Youssou ku bëgg aar nga ko bëgg lu mu am yëpp si réew mi la ko delloosi lu mu am yëpp si réew mi la ko delloosi bu woyee am su ko neexoon mën na dëkk feneen mais xam na ne mënul am lu gën a rey réew mi li mu am si réew mi la ko delloosi employé yi mi liggéeyloo fi lañ nekk fi lañ dëkk xaalis bu mu yor fii la ci fii la ko investir te loolu ñun ñii daf ñu war bu ñu amoon doole bi mu am dañ koy def kon bu ko defee muy jikko yoo xam ne dañ koy rafetlu man loolu lay jàppee nit Wally Seck li muy doon doon xale ku ne gis na gestes yu noble yi muy def si àdduna bi. mais tamit Galass la moo la poussé nga way Wally Seck parce que jaaxal na àdduna. suma xalaatu bopp la ak suma conscience tranquille dama koy def dama ko sentir man lu ma yëgul du ma ko def du lu may may du lu may jox du dara dama jàpp ne rek xale la am na jom nangu na liggéey mu ngi def gestes yu noble man loolu laa ko nawee tabaski bii paase rek ñun waykat yii ñu ko xam yëpp kenn ku ci nekk moo yëkkati xar jox la nga dem tabaski te bu ko neexoon du ko def yooyu yëpp ay geste la yoo xam dama koy jàpp si nit moo tax ma way ko. mais moom mu jotee toog dégg ne yow way nga ko affaire bi moom euh, yow moom ban kii la amee quoi maanaam moom ban euh, émission la ko def bu mu déggee ni man mii kat sama grand tey dugg na studio waaye ma ba muy toj Sénégal jamono ji waaw dafa dañu dañu toog fii ci mbaar bi man ak Ndiaye Rambo. Pam Ndiaye Rambo bi ak ak ak euh, grand Vieux Sarr Vieux Sarr moom tamit euh, artiste la waykat la ñu toog di waxtaan ba yàgg Vieux composé benn morso ma ne ko morceau bii de man buggoon naa rendre hommage Wally baal ma woy ko si noonu la ñëwee suma bopp ma woy ko ma ko woyee ba pare boobu temps mu ngi génnee mooy morso bi mu woy xale yi dem si gaal gi di ñëw di ko déglu si fii bi mu koy déglu si ma ne ko mais rakk ji nu mu demee mu ne ma ça va grand ma ne ko kaay am ma am lu ma la tegal mu ne ma non yow grand yow loo way day nice pour moom sama morceau la bi mu ñëwee fekk clip nañ morceau bi ñun ba pare clip baa ngi bi xam nga mu ngi daw xam nañ waaw léegi donc ma ne ko kaay xool mu ñëw di seetaan mu ñëw xool gis gis image am muy génn mu ne waa lii lan la gars yi ne ko ñoom Seydou Seydou Seydou Seydou technicien ne ko mais waa lii déglul rek xoolal rek seetaanal mu daal ne ah kon naa taxaw après mu sëg mu sigiwaat mu def nii mu xool xool xool jékki-jékki rek gis may woy di ko woy après mu jooy ndeysaan mu ne mais grand yow mu demee nii affaire ma ne ko waaw ah, mais gis nga ko nii la demee noonu la si yamee daf si tombe fekk ñu pare noonu la ko gisee bi mu ko gisee dafa jooy waxtaan ak man kottuma ndeysaan wax wax ju rafet comme niñ ko xamee ta saa su ne niñ ko xamee niñ ko gisee def lu nice wax lu nice mu nekk booy bu cool booy boo xam ne ni man daf ma yàgg respecté jox ma cër sa mun mun xam mun naa wax yi man artiste yëpp mu bëgg ñëpp sumay xarit lañ ku ma si dem si sa kaw chaîne damay def lu ma neex te ku ma si woo di nga ñëw donc amuma awma benn xaar ma yàlla ak benn artiste waaw ci tamit ñu nekk ci moment Covid te xam ne galas euh, ko xam da nga koy da koy namu ci waaw ci xew yi ci ngéntal li ci takk yi waaw yu neex yooyu noonu yow laa galas nan nga dundee loolu noonu en tant que yow li nga daan jox askan bi. metti rek non lu metti la. Eh. artiste bula wax ne lii mettiwul dafay dafay dafay sagal boppam rek mais koo xam ne danga doon xëy yàlla di la wërsëgaleel ngay am ay nit yoo àndal di ko bokk ak ñoom. yow ñëw naa seen kër def prestation. wayal gaawlo yi keroog gis nga lu ñu àndal ci mbooloo te ñoo ñëpp sa ginnaaw lañu nekk yàlla moo la boole ak ñoom li ñuy am li ngay am wërsëg bi ngeen di am yàlla yow la ko jox nga di leen ko jox ñooñu soo taxawee liggéeyuloo seen robinet day tëj mais nag dañuy jëlaat lépp delloo ko suñu borom moom mi nga xam ne robinet du tëj dégg nga ma est dañuy jël lépp delloo ko yàlla moom mi nga xam ne robinet am du tëj di ñaan aussi lii nga xam ne moo fi am yàlla jëlee ko fi mu jeex ba kenn ku ne delluwaat ci sa ay activité muy mbas bi am te yàlla baax na yàlla bari na sutura mais nag métti na si artistes yi trop artiste bu la wax méttiwul ci man non non dalay wax day wax lu ko neex rek mais ci artistes yi la gën a métti ndax boo xoolee dëkk bi yëpp a ngi dox sant artistes yi te man dama jàpp ne loolu sax waroon nañu xool beneen système bu gën yomb au moins que mu jàppale artiste te du tere ñu ñu def sensibilisation ñu def lépp mais artistes yi waroon nañu am benn waroon nañu am ay activités. dégg gars yi am nañu ci jàpp sax di ko tas ci artistes yi wala loolu dafa ñëwagul. ay aide Covid 19 la tudd hmm. bi daaw daaw parce que mbas mi def na fi un an bientôt dafay mat un an parce que mars la fi duggoon le 2 mars yaakaar naa am na 10 mois et quelques daaw 127 740 lañ joxoon gars yi. bii pa ñu ngi def seen répartition ñun ñun sax egseegul ci ñun mais suñu booy yi ñu àndal am na ci ñun yoo xam ne jot nañ cent vingt deux mille la mooy mooy force mooy fond covid 19 bi mooy moom la ñu moom mooy aide yi loolu moo fi loo fi dugg ci artistes yi artistes yëpp loolu moo dugg si ñoom kenn ku nekk mais est ce que mënuñoo gis comme euh, yeneen artistes yi nga koy defee ndaanaan yi toog seen kër di def lu neex di ko def live pourquoi gisuñu ci galas quand même parce que askan bi dañ ko bëgg dañ ko namm macha allah. Ah, boo yoroon sama Instagram di nga xam ne dañuy def loolu dañuy def ay live ci Instagram bi ak yooyu mais live yi du nekk chaque jour donc ba pare live yooyu amul euh, am na rendement si sa art si sa xarit yi koy seetaan sa fan si mais dafa metti parce que boo jëlee artiste bi lay joué. déplacé ko mu ñëw sa kër amuloo fa studio bu acoustique guddi gi danga am ay voisins yow dëkkal munoo tout le temps ngay def ay live di way di leen tympaniser bu boobaa tooñ lay mujjee nekk kon da ngay def benn par benn des fois nga jël benn samedi door ko des fois nga munul nekk chaque jour bu doon laa am nga sa studio wala dara di nga mun di ko def every day every time bu boobaa di ko mun a def waaw. waaw ah, kon d'accord yaakaar naa ne loolu mu wax noonu leer na macha allah mais Galass du ñu defee du jox la nga def der. def lu neex parce que gars yi namm nañ xam naa mbokk internet yi sax loolu dina leen gën a neex quoi. Siri kumbalaw beeg buubu kumbalaw beeg ab sa kumbalaw beeg kumbalaw beeg ku la yaay ti lay ti ngalanka moolu Ousmane Sigi Paate Sambala gànju leen may munaas sama xarit la munaas doomu yaayu mbuuba jëli dundal mu yàgg lool Siri sa bala ñi ngaan dramata xaay soo gi jigéen ron jigi samb lot kurum bi san sugu paate sambala ganju leen yaa doonu siree moom laay may loolu moom laay may loolu waaw mais tamit galaas bi ñu gisee nga yuuxu ni xel yëpp day dem ci koo xam ne Coumba Gawlo aussi euh, ñu lay laaj jël ban révélation nga mën def ci moom damay wax rek euh, ndog yàlla moo koy indi si nit mu nekk une dame de fer démb rek sama maman Kinelaam ñu ngi waxtaan fekk suma benn xarit bu ñuy wax bu naa doon jël soxna Kinelaam nekk seen bàjjan ñëwoon fa bu mu fa ñëwee ñuy waxtaan ni ba mu naan ma Kumba de ndeysaan dafa feebar ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla sunu borom yëkkati te di wax état bi aussi. Kumba Gawlo nekk na koo xamante ni bañkat la du mus a dem ci tele di def téléthon wala dara ndax yàlla dimbali na ko sax li muy liggéey am na si teraangaam mu ngi siy faju mais nag du doy parce que opération boo xam ne da nga war a dem Europe dem defi ko na nit yi état bi nañ ci jàpp ñu génne ay fonds jàppale ko mu dem ci kaaw bi faju parce que li mu yor du doy ndax faju boo xam ne da ngay ànd ak sa yaay ci koo xam ne mosuloo dal ci kër kenn boo mës a tukki première classe ngay jël luxe la mu nekk une dame de fer boo xam ne am ay partenaires si àdduna bi fépp nekk woykat boo xam ne intercontinental dama bëgg gaayab jàppale ko soutenir ko ndax suñu alal la. lu nekk ci fii nii euh, Afrique. no no elle a fait beaucoup de choses dans le milieu showbiz amul lu si deful. amul fu mu défendrewul Sénégalais yi amul fu mu yóbbuwul drapeau Sénégal bari na ay écoles yoo xamante ni man xam naa ci moom fulla boo xam ne moom moo ko tabax ci ay partenaires am yoo xam ne dañ leen doon jëlee Europe di leen indi fii muy ambassadeur nekk benn ambassadrice bu nga xam ne bañkat Coumba Gawlo xam nañ si moom fulla ak fayda ak dignité na état bi génn jàppale ko parce que ñoom rek lañ koy ñaan ndax moom xam naa ne du mus a dem si kenn di la wax loolu ndax nit ku am nitu valeur la nit bu diiñ la waaw. mais bi nga toogee dégg mu def ah, kii boobu noonu génn ne moom dafa ah, ma dafa pare pour bàyyi waay en tant que yow musicien artiste di ndaanaan ko déggee nan la def ci yow. waaw métti na ma trop am naa si lu ma metti mais nag aussi dama koy sante yàlla ndax am na yoo xam ne bu amee si doomu aadama rek bu dalee jaam rek dangay xool ne ndogal day am. sunu borom mooy dogal ay mbiram lu ko neex si jaamam tey mun na wax bàyyi naa way fekk du bàyyi way bu wéree mun na delluwaat parce que dina am foo xam ne boo fa tollee yow dootoo moom sa bopp si way nit ñi ñoo lay soxla di la laaj boo amee wér nag di nga mën a dellu si waat yàlla baax na mun na wér bët ba fàtte lépp parce que feebar ak wéer ñoo ànd feebar ak doomu aadama ñoo ànd loolu laa jàpp ne daf ko wax rek c'est parce que instant bi sentiratul boppam ak voix bi nu muy wax noonu mais yàlla mun na ko delloo si waat ba mu continuer wat ay activité am yàlla mun na yàlla dara taw ko waaye te nit ñi nañ si jàpp na si ñëpp jàpp bon volonté yi ne si dëkk bi nañ jóg ñu jàpp si ndax bu dee kumba ak kumba rek moom du jug dem si kenn ndax xam naa si moom dignité boo xam ne du def loolu mais nag lu war la nit ñi jóg jàppale ko Euh, comme ni ko Galas waxee moom nee na euh, euh, Coumba Gawlo de valeur la moo tax it aussi moom nee na képp koy xaar ci mu jug di dem di ñaan suñ yaakaar naa du ko def comme ni mu ko waxee mais fi ñu ñëwaat rek mooy Galas lan mooy sa projet ndax doon nañoo dégg benn album mais boobu moment ba léegi xamuñu fu mu toll daal préparé woon nañu pour def benn album boo xam ne huit titres la fii lañ ko doon defee ci studio bi sax ak Papis Ndiaye d'ailleurs yaa ngi fi pare na amul projet bu muy àndal album suivi de grand théâtre album suivi de concert bu live bu mag album suivi et cetera et cetera loolu yëpp amul donc munoo génne album dans l'air comme ça nii mu nekk après ci ci ci ci ci bagages yi il faut ñu xaar ba dëkk bi ubbeeku jamono bi changé ñu mun a génne album pare pare promouvoir ko parce que album day ànd ak projet. mais sa fan si nekk Gambie nee na yooyu lan ngay xaar pour dem defal leen comme ne artistes yi da leen defal quand même. incha allah rabi ñu ngi wax rek ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy tàllal loxo promoteurs yi fa nekk rek comme yàlla daf ñu dimbali may ñooy fans fépp si àdduna bi Gambie doon nañ fa dem ay jamono daanañ fa dem di fa jouer mais comme cette année ci Sénégal dafa tëju Gambie ñu ngi jouer waa na promoteurs yi contacter Gallas mu ñëw indi bagage yi ànd ak ndaayaan groupe ñëw fa ñu bégeel doomi garmi day ñu ngi jam-jam lool doomi li maan ak yaaram buñ ko dee tallal ñaari loxo maxaamam baay baa ko waral doom bu juddoo rafet nunu baayam tuuma yaayi ki ne maam bamba ala rampaate la jigéen a rampaate de pend yirim deel ma ca taaleen yaay yaay booy ki ne maam bamba wayaay gi ma busa mbaay ma busa mbaay antaay sayaay doomi garmi di ñi me lool maaren bee fara maaren nga kajoor ak bawal ma njobba ngoone fara maareer bi latti joob degen mbaay sa joor demba degen mbaay demba degen mbaay daagu daagu degen mbaay ku rafaaleeg degen ma bu sa mbaay doomu yaayu labbaak bunaama bunaama seeri xadi faal siiri xaadi faal doomu yaay ma bu sa ma bu sa pap mbay ma xami ci ndeer ma sàmm mi ci wàllo noo te nga ma yuquma nga gànjool doomi gar mi ngay doon pap mbay borom tuuba e eh, pap ma xarumul mi ci ndeer ma samba nga waalo noo tee nga mboojeen muy xuma nga gànjool ma ca piccam ñoor maar paap mbay ma xa tàmba mba jigéen wàllu kër yaay yaat maag ma joojo biram benn màgget mbaay dorobe mbokk internet euh, dakarnet point com tey li la leen àndi woon seen émission showbiz amoon ak mbégte ak contentement di dalal galas di ndaanaan koo xam ne tey ñëpp dégg ko ñu ko namoon ñëpp xam naa ni tey jii moom seen gisuma leen mais seen xol sedd na di leen jox ëllëg dig dajee ak keneen incha allah jaajëf bigëb